Écoute sur ay ci jërëjëf euh, jërëjëf Abdoulaye Diop jërëjëf Yacine Pouy jërë ngeen jëf auditeurs yeeg internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel RFM 94.0 point 0 yéen ngi seen journal des faits divers xalaas di sant di gërëm partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndal waaye di kontaanaat ci euh, Mamadou Ndoye Bane ak euh, l'homme passe partout di seetaan Ndiaye di ko wax ni <laughs> moom kañ la congé bi di jeex passe partout maa ngi lay ziar. la nga xam ne Ndiaye congé 45 jours la. ah maa ngi koy dégg ci àdduna. dañ koo kii. ñeent fukki fan ak juróom. <laughs> waaw maa lay ziar. delloo ziar sama maa lay nuyu di nuyu Ban. di nuyu auditeurs rek internet yëpp. tey moom faaw ñu gaaw kii Aba dama am programme. programme la waaw tey sama gars yi am dama am ay copains yuy yu marche tey. ñan la oh, kii journaliste yi. samay xarit la ñu nag. dañuy def benn manifestation faa mu dem ci. ay journalistes yu marche. fii ci ministère de la communication. ah ok def benn sitting quoi. waaw parce que dañoo jàpp ni dañoo jàpp ni journaliste Sénégal daal euh, maanaam amuñu seen àq ak seen yelleef. Hmm. waaw est-ce que loolu la. ah waaw moom bari na ci daal mais bari na ay kii man faaw dem faaw dem. est-ce que loolu la est-ce que motif bi loolu bon. non modi non modif yi bari na. ku ci mën a dem na nga dem rek waaw. bari na bari na ay ah, ponk mais benn rek. day dem non man dewuma de. ah lu tax. ah mais dama am yeneen yitte yu may doxee. mais yow ak journaliste ni ngeen mel. waaw sa bari naa ci xarit moom man li ma doon journaliste yi ñoo ma ko def les vrais journalistes tax may wax de waxuma waxuma kaber journaliste ban amul rek foo waay ñëpp abaa ah dama bëgg nga déglu ma maa lay déglu y des journalistes et des commerçants ci presse bi ñoom lañ lijjanti loolu yu am na yoo xam ne les vrais journalistes dañ ñemewuñu ko wax wala dañ ko rus a wax ñoom li taxoon li tax ñu man bëgg bon maa ngi saluer ñi nga xam ñoo initié loolu Bamba Kassé waa ak ki ñu invité woon ce matin. Euh, euh, dama gisee man journal un vrai journaliste dama koy respecté damay fier ci moom. Mm-hmm. ñoom mm-hmm. ñëpp maa ngi leen di seen liggéey mais dama leen a yërëm ci rax bi ñu leen rax di yàq seen liggéey di yàq seen der guddeeg bëccëg suba ngoon mais Sénégal mu doon dëkk boo xam ne dafa naqaree waxe mais mënuñu ko wax. Mm. mais commerçant yi ñoo ëpp ci ñoom. benn bi mooy li ñu war a lijjanti. mais journaliste yi ñoom bànn la ñuy jaay. dama déglu ma li ñuy jaay ah. mooy information lay. ah tey jii da pour ñu invité la yow man tey jii da am na ñoo xam dañuy jaay seen ay émission jaay ko kilifa. kaay nga ñëw ci plateau ñu fekk jaay nañ ko ba yàgg def seen poste li may wax ni je pèse bi bien mais moom.

ah ñoom hmm. balaa ñu doon dem di def ay marché yooyu mënuñu woon loolu la ñu war a liggéey dañoo war a war a raxas seen corporation bi ba mu set wicc ba pare euh, bañante gi journaliste yi bañante seen biir ñu xool ko tey de par exemple un média comme groupe Futurs Médias hmm. ñema nga fee toog fii nii man man ñemewumaa toog fii di tudd benn journaliste di wax lu nakk su dul noonu ci moom ñemewuma ko hmm. Hmm. parce que dañ la ci dul bàyyi ñemewoo woo toog TFM di tudd ci benn journaliste di ci wax naka su dul noonu kenn du la ci bàyyi ñeme woo tey ji ñaata eh, xibaar laa yow mu wóor la yow mii abaa wérte wóor ci ay patron de presse te ñëwuma koo teg kenn nangu maa bàyyi ma teg ko abaa waxal ay xibaar yu wér te mm. wóor. Mm. ah ñoom kon dañu manqué di protéger ci seen biir. du ñu wala c'est ça mm. maanaam soo nekkee ci da ngay gis. buggante sénégal yi ñooy teg seen bët ci ay télé. am na yenn journaliste ay télé da toog ñuy yàq deru un journaliste. ay journaliste ko def wala patron de presse ña fa toog ca plateau bu di après di di kontaan di jibile bi ñu yàqee surtout bi ñu sànni bi ñu attaqué TFM ak RFM ñu ñoo tax ñu attaqué ñu te kenn mu ko wax. loolu est-ce que bokk na ci mais a différencier journaliste parce que le problème mooy Sénégal dañoo jàpp ne ku téye micro rek journaliste. c'est ça le problème. dëgg la de yi ñaar abaa ba nga fi toogee am na ci animateur yoo xam ne français la ah, ah, ah, mhm. ba nga fi toogee ba tey ba nga ñëw Futurs Médias ba tey yaa ngi dégg ma naan journalistes yi ci réew mi les vrais journalistes génne école yor seen diplôme fier doon ay journalistes yi diñ bariwuñu ñi yàq seen liggéey ñoo fi bari commercant yi ñoo ci bari te ñoom ñemewuñu ko wax suñ ko ñëmi wax nag man nañ ma fal président des jeunes reporters ma limal leen commercant yi ci presse bi ñëpp tout ñi jaay seen émission yi ma limal ma ñu dégg

technicien laa moom laa ci presse man tey fu ñu joxe carte de presse dañ ma war a jox parce que man lool laa jàng loolu laa xam lii may def nii di animation beeg yooyu journalistes yi ñoo ma ci dugal ñoom Binta Diallo ñoom Babacar Fall mii ngay gis ñoom Makumba Mbóoj ñoom ñoom ci man ci man dama formation boobu nga ci formation boobu laa laa ah. jóge ci man li may wax je pèse très bien mais moom mhm. man ak ay mag journalistes yu mag ci ci ñoom xam nañ sama jaataar baax man technicien laa di fayee ko salaire u technicien. àdduna moom ñaari yoo fi am ci métier. Hmm. théorie. wala pratique te yow pratiqué nga ko. voilà nañu dem ci xalaas bi. voilà euh, tey xalaas lan la indi ba pare baan euh, damaa bëgg euh, man tamit damay mars. waaw taw yi ma daw booy agresseur yi ma topp. ma jaasi abaa abaa dëgg yaa fi yaa fi daw nag abaa. scénario la de. scénario la ngeen def très attention boo yeeg ma koy fàtte naa ma sa mise en scène la boo yeeg may daw yi nañ ci def très attention maanaam yaa ko tey xamoon nga ko <laughs> théâtre la woon quoi ne <laughs> lii lan la baax bii da ngay topp ah, soay dañ koo tàmbale dañ koo tàmbaleelu samedi bi passé mhm. euh, vendredi ah. passe neel joxe ko loo ci bind nii sax mbaras mbaras laa ko déglu waaw mbaras nañ déglu rek nañ déglu bu baax a baax laay place bi ngeen teg waa jooju man damaa dund lu ko gën a biir man mii di wax ak yow boobu sama tante da doon jaay HLM sa restaurant ma di ko jaayale may ma wàcc di ñibbi ñëw ba cité des eaux fekk fa benn femme bu taxaw ak saagam ëmb ba diis di jooy ma ñëw fekk ko muy jooy ma taxaw xam nga rek man xolu yéen maa ne man ko soxna si looy jooy mu ne ma man dama am ba samay parents génne ma aw ma fu ma jëm ci mbedd yi laay fanaan xale yu góor yi rek may sonal ma ne ko amul problème man de damay sëy mais mën naa laa yóbbu sama kër ndax sama jëkkër amul problème ma jël ko yóbbu ko sama kër man ak moom ak sama jëkkër ak sama ñeenti doom déglu bu baax li ma lay wax ñu nekk fa ma waxtaan ak moom man ko xam nga jamono dafa naqari te doomu jàmbur mënoo koo jël rek risque ma di ko téye te waxaat ci ay parents am mu ne ma sama parents yi boo fa demee dinañ ma waxal loo xam ne dig ma génn ci biti ma ne ko déedéet nañ dem rek sama jëkkër ne ma ndegam kii dafa ñëw te dafa feebar nekk si ay tolof-tolof danga koy bàyyi xelam mu dal nga yóbbu ko hôpital ma bu baax fan yooyu ma ne waaw naa def loolu ndax waxu kilifa moom waaw la sant may ànd ak di dem hôpital ma lay wax ni sori na de diis na de min ci ay neuf mois am di yóbbu hôpital yooyu rek fan yàlla fan yooyu yàlla def mu am doom léegi mane ko doom yi na xam nga ki la mu ne ma déedéet xaw ma ko ma ko léegi nooy def nañ dem sa pa mu ne ma déedéet dee moo gën a paas nga ci kër jënd xar billaahi wallaahi tallaahi ak weeru koor gi ñu rayal ko woo iliman ba nekk ci koñ doom ji mu ne kooku yu mu tuddee ko ben rak papam nee na bu gañu boo xam dafa sori woon ci mom bu doon dund li misère yi mom du ko dund tay bu ko doon dund mu tuddee ko doom ci ma ko ah lo rafet na yalla na dund ci am day bay yaay deg lolu jallo ma and ak mom ak sama jikkar sama jikkar taal otom ñu dem ba dekkam yaay deg ñu wax ak ay parents wax ak nom param ni mom ñoom suur nañ ko àdduna ak àllaaxira bu ñu deewee sax seen dëj bu mu fa teg tànkam yaa ngi dégg léegi ma ko man de dinaa ko jël tey ko sama lu ma ci góobee dar ko te bu ma gisee ku koy bëgg si allah rabi naa jàpp loo xam indi ko fii yaa ngi dégg ma wàññi koog moom ñu leen nagam xam naa kër gi dama fi gëj indi ko sa waay ñëw ci kër gi. te doomam ba doomam dëgër mu commencé di liggéey jokkaat mel nu ko neex ya? dem ci sëriñ jabar sama jëkkër ba dëddale ko man sama jëkkër mel ni gaynde sama kaw dóor guddi dóor bëccëg benn bis dañoo fubba sama bagage yi ma bëggatuma laa gis sama aduna parce que alxuraan karim noonu laa tàggoo sama jëkkër ma dem tas ñibbi suñu kër mu ne dàgg di sëy sëy bi moog sama jëkkër parce que alxuraan amaat naa ba am sax nah, ñaari doom parce que foog ni àdduna bi jeexul ci laa jóge nag am xolu ki ñaan barke alxuraanu karim rusuma ko wax fenn man maa baaxee dimbali nit. xalaas. mais lii c'est grave ah. c'est grave c'est pas encore grave. nangoo jabar dafa nangu jëkkër ji toog fa di sëy mhm. ndaw si di ji lijjanti lijjanti ci ku la fekkoon ci mbedd mi nga ëmb mu jël fat la dimbali la ba nga am doom ba nga am doom yóbbu la say mbokk say mbokk bañ la day mbokk rejeté la ni yóbbu la seen kër ñu bañ ne kii baax na même bu deewee bu leen ñu indi waaw mhm. kooku moo nangu jëkkëram la ilaha illa waaye yàlla nag yàlla tey jam ñaajo la ne de day ñëw fayul la delluwaat delluwaat toog jam ñaajo sànq yi nekk foofu. waaw waaw surtout à péage à à Patte d'Oie Patte d'Oie soriwul yow dem na ngaa sori. non terrain basket te te te te. mujj ndaw si am na beneen jëkkër bu gën a riche jëkkëram ja. jeexagul gën nga mm-hmm. déglu. bu may daagu ca kër sa waaye de instant yi daa mel ni sëy bi dafa yëngatu. ndax fan yii moom jëkkër ju jote nañ fi jëkkër ju dóor ko ba bët bi neewee. ma ne ko liggéey bi day toj su liggéey day toj te liggéey boobu noonu am na loo xam sax expliqué wu ma ko ci benn paa lañ ma yebaloon ma dem fa paa wi ne ma liñ ko def liñ la def foog nga dem ci almeer sangoo fa ndax li nga def ci almeer duñ ko suur yaa ngi dégg liggéey bi moom fekk sangoo ci almeer du toj man ko kon dafa toj na duma sangu ci almeer mais sama jëkkër man xam naa ne man la bëgg day toog jékki-jékki toog ay copain mën naan leen man xaw ma lii lu mu doon billaahi wallaahi tallaahi mel ni sëriñ bu mu dem dañ koy wax lii luñ la def la mais moom amul fi di jàkkaarloo man wax ma ko da koy yóbbante lu leer laa lay wax paas ak waxtu yàlla bi waaye man sa dommage yàlla daf maa dimbali paas man sama papa dafa gaañu sama yaay gaañu samay frère amuñu doole ci man lañ yaakaar may toqale xol bu rafet boobu la ma yàlla fay yàlla may mu ci kër am situation macha allah laf cat amoo ma dara kana jonga ma nekk jéeg tal ma min naan bon betul nih, ni man may daako am na benn bis ma dajeeg moom muy dem marché mu muuru xat lu kol la mu duma sikki xool ma ma ne ko yenn yi boo ko defee doo mën a xool jek waaye jéeg baa ngi nii de namul dara la ma génn fu ma duggoo ko mu yolos yolos dégg nga li nangu na jëkkër ja mhm. toog di fi mais nag yàlla dimbali na ndaw si yàlla ñëw na ma nga naak leneen nee na man jéeg pire fu ma daagoon ñu xam ne jeega am naa keneen ku gën waaw ndaw saa nga ci kër gayu nga sëy léegi bon leen jàpp ni liggéey la mhm. liggéey baa ngay commencé toj waa jaa ngi koy duma guddeeg bëccëg suba ngoon mi ngi noonu kan moom fam bi kañ euh, foron moom ko taxon sëy ba moo ngi ñam ma nga pire bu baax lu des lu ngi noonu en tout cas li ne ci réew mi garaaw na de. Ah, léegi kee tamit moom ban lan moo tax moom mu nekk ci beneen say engagé wu di say feneen lii bëgg ko mu metti moom ba tey. noonu non xam nga élément xaw na fa yàgg bu defoon daa am lu fi jàlloon mooy ci. maanaam nga dimbali ba pare mu mu war la. mu war la loolu élément bi lu mu yàgg yàgg yàgg femme bi mu ngi ci beneen euh, feneen di fa sëy. lan moo tax lii di ko metti ba tey. day xëy ji daal day xëy ji ak moom. waaw day xëy daje ak moom marché dañuy daje marché ak ñoom seen. mais bu dee moom foog na ne ci li mu nekk moo gën ci li femme bi ci lee mu bàyyi. waaw ba femme bi nekk ci kon moom lan moo war tax mu war a xool ci ginnaaw. wor dafa metti maa ngi jégalu yàlla. non non non non Abba am na question bu muy xam naa fa nga jëm. ayca mais temps bi ñu ko dul may. ayca ndax Abba amoon na fan yee passé. Mhm. auditeurs yi suñu dégloo am na benn maire bu nekk France. Mhm. bu doon dox ba dajeeg benn waay. waa jàpp ko nuyu ko mhm. ba am lu lu maire bi di gis mer bu su day julli day gis ay jaan su dem jumaa day gis ay jaan dina law ay ay jaan di ko wër xam affaire bi changer ba ci doomam yi wanoon naa hmm. photo doomam yi photo photo kanamu dom bi kanam gu normal gi mhm. ak kanam gi su len affaire bi duggee ni sen kanam yi di changer mais indi won nga fi lol ba affaire bi da mujjé jeex wala jeexul mer bi dafa jaxlé won ñew xalaas hmm. légui mer bi ci boppam woo ma ni ma damay ñew Sénégal hmm. damay ñew Sénégal man ko d'accord mu ñewul maire bi ñëw Sénégal nekk ci région yi. woo ma ni ma ñëw naa léegi dama war ma war moo yóbbu ko ca mbay. mbay ma ñu fajaloon. ndaw su doon taxaw ci talibé da nga xam ne ku ku jël rek yóbbu def ko yi fi saay saay bàyyiwaat ko. mbay mbay waaw mbay. mbay laslaar xaw ma. Mhm. Mhm. maire bi woo ma ñu daje ma moom rond si Cap Mbaaw. ma gisanteeg moom pour la première fois barki démb. yaa ngi bi maa ngi mhm. bi. maire bi nekk ci oto ma nekk sama oto ñu jiitle ba ci mbay. Mwa yo bokoti mbay, mbay tok, mwa tok Mwa isplika mbay aferi yep feki yon li na kon emisyon api mbay mhm. Mbay tok, mwa tok, limer bi tok, nou tej bun tebi Deglo kebaik, hendak pian kebaik, hendak pian kebaik, hendak pian kebaik, pian kebaik. Tapi minullah. Syarada ilai. No. Tubal. No. Oh tubul dama lerai. No. Dengan bukade. No. bukade. No. No.

di nga ko bàyyi ndax doo ko bàyyi boo ko bàyyi dama lay rey boo ko bàyyi ñu rey la boo ko bàyyi ñu rey la boo ko bàyyi ñu rey la te mën na tey wóor tey kan moo la ko may kan moo la ko may kan moo la ko may di nga ko bàyyi di nga ko bàyyi tey tey di nga ko bàyyi boo ko bàyyi rey ñu rey la boo ko bàyyi dañ lay rey. ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah dis-moi ton nom. mais pourquoi. je veux parce que c'est ma femme. je suis son mari. pourquoi. parce que c'est ma femme. pourquoi c'est ta parce qu'on me l'a donné. qui t'a donné ça. Diallo me l'a donné. me l'a donné. m'a donné cette femme là et c'est ma femme. Il me l'a donné il y a très longtemps. Il m'a dit, voilà, je te donne cette femme, c'est ta femme. Et il m'a donné cette femme-là, à la place. En échange, il est, il est avec ma fille. avec ma fille. Et si je pars, qu'est-ce que moi j'aurai ah, ah, ah. J'aurai moi à la place. Celle-là, c'est ma femme. Et j'ai donné tous les pouvoirs à je lui ai donné ma fille avec tous ses pouvoirs. Et si elle part, moi, qu'est-ce que j'aurai à la place Je lui ai donné beaucoup de pouvoirs Il m'a dit, je te donne cette femme-là. Et ça fait 10 ans qu'il m'a donné à celui-là. Et maintenant, pourquoi tu veux gâter ça De laisser Tu veux mourir, non Non, Tu ne veux pas mourir Tu ne veux pas mourir Il faut convertir en islam. Ashhadu an la ilaha non, je ne peux pas Pourquoi tu ne pas je connais pas. Tu ne connais pas Non. Tu habites où Moi J'habite Arrêtez, Arrêtez, arrêtez. Non, non, pas je vous ai dit, je vais sortir. Je vais sortir maintenant. Je vais sortir. Mais il faut qu'on me dit. Mhm. Avant de sortir. Je veux sortir. Je veux sortir. Là, là, là, là. Là, il est là, là, là. Ça suffit. Moi, je n'ai plus de pouvoir, je n'ai que et c'est elle qui m'apporte le pouvoir. Maintenant, si elle part, si je la laisse, qui va me donner le pouvoir. Il a volé tous mes pouvoirs, mais je ne pourrait plus rien faire. Mais c'est elle mon pouvoir. C'est elle. C'est lui qui m'a proposé le pacte. il, m'a dit, je te donne la femme et tu me donnes tous tes pouvoirs avec ta fille. Et je lui ai donné ma fille. Et je lui ai donné mes pouvoirs. il a quatre filles avec ma fille. Oui. Et maintenant, vous voulez prendre ce qui me reste. Et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir moi Si je perds tous mes pouvoirs, personne ne va me respecter. Personne. Et je n'aurai rien. Donc, il faut me donner quelque chose en échange et je la laisse aujourd'hui même. Je pars. donnez moi mes pouvoirs. moi rendez-moi mes pouvoirs. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais je ne la lâcherai pas. Non vous me fatiguez, vous me fatiguez. Vous ne pouvez pas me tuer Laissez-moi partir, vous ne pouvez pas me tuer Vous me fatiguez là. En ce moment, je suis fatiguée. Mais vous ne pouvez pas me tuer. <laughs> yëf aba ba ma juddoo ba tey man fu du dugg naa fa waaye bii moom man musuma teg bët lii nii li naan sama bët ma may maa fekke maa toog maa teg sama bët li graw na ah. bi mu fajoo ba pare mhm. ah mhm. ba ñibbi mhm. le lendemain dafa ñëwaat déglu problème bi nag dal na ma am na juróom-ñaari at sax bu ko ëpp di julli di wérdu ay jaan di ma topp topp ma topp suma njaboot ba egg ci suma sët jaaxle lool laajte fan laa mun a faj buñ ma wanee kii tey ma daw foofu jógee sa bitim réew daw dëkk boobu dépensé fa ci sarax ak ki may faj li ma koy fay def naa lu ëpp juróom-ñaari dëkk yu wër Sénégal région yi nga xam ne foofu la ñuy gën a wax ni fajkat yaa nga fa mhm. dugg naa fa def ay weer ci biir àll bi léegi ba ma jaaxle mhm. la contacté benn émission bu tudd xalaas am yaakaar na xalaas ñu ngi koy déglu partout te àddina bi mhm. ba ma fa demee nag laa posé sama problème bu doy waar ndax ni ma nekkal bitim réew sax gëmuñu ma ni man naa ngi dund loolu ay jaan di dox sama kaw yaram bu may julli jàpp bumay may dox jaan buma toge sama bureau di ligey jaan jaan yi wër ma guddi may ñu ma jàmm du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg topp ma top sama jop donc ba ma waxee émission loolu ma am ti yakar lo ni mun na am ñu volé ma ben nit yàlla bu am yermande metti bobu moma top du fi senegal mhm. bu ko rek may dugg may franchir sa buntu keur ba pare ci sama biir xol ma ngi wax ah. dama fii ñëw rek comme ni ma demee ci ñeneen yi ba tey ma ñëw rek mais yaakaar bu rëy bu rëy aw ma ko woon ba ma fiy dugg feebar bi bitim réew lañ ma ko teg ki ma ko teg itam mooy sama borom kër nekk naa ci buumu sëy mais dafa mel ni sëy doxul suñu diggante ci li ma seetlu ci moom dem na Inde jàng fa fi fétiche mu am fa xam-xam bu rëy ndax France euh, bitim réew dëkk bi ma nekk

man sama bopp bu ma tëddee guddi mhm. am na benn jigéen bu ñëw tiim ma mhm. mu ne ma man maay sa jabaru jëkkër sa jëkkër man maay jabaram sam papa moo ko jàngal xam-xamam mhm. daal di may jël may ma ko sa jëkkër ji xam-xam yi mu am yépp man maa ko ko jox bu ko ci sama doom bu jigéen may ko soo nee sa sa sëriñ bii di faj bu nee man naa naa la bàyyi mhm. dem bu ma demee damay ñàkk moom en échange mu jël la yow jox ma voilà noonu la defee dañu def pacte may naa ko sama doom ak sama xam-xam mhm. moom mu yëkkati la jow mu jël la mu ne ma mhm. kii maa may yow nag nga nekk sama jabar léegi yow su ma la bàyyi nga dem musuma gëm lii wala ma gis ki ma nekkaloon góor gi ma gis ko soppaliku benn façon soppaliku bi nga xam ne wala ma gis jaan bi nga xam ne bopp jaan lu yore te li ci des beneen melokaan laa door a gëm ne lii am ma gis sama doom te boppam man li may gis sama doom di ko gis di ko nettali ba ci sama sët bi tuuti bi di nettali ma nii maamam li may gis ak yaayam li muy gis ak moom ma xam ne lii am na fi may liggéey aw ma fa jàng bu ma tëddee guddi aw ma jàmm bëccëg aw ma jàmm mais li ci gën a metti li ma ci gën a metti gën ma sonal mooy su may julli taxaw di jaamu yàlla jaam bi taxaw sama kanam ni ma bàyyil julli te jaam bi ni ma waxee bàyyil julli bi sama borom kër noonu la ubbi woon gémmi ni ma bàyyil julli bi xalaas abaa dégg nga bi mu fajoo ba pare ba wér toog 24 heures wala 48 heures yoo xam ne gisatul jaan yi la mu daan gis gisatu ko ngi nelaw normal julli naan normal te dara jotu ko te su daan julli rek ci la ko affaire yi di attaqué te su gëmmee su fermé bët yi. Mhm. moom ci ay waxi maire bi mais su gëmmee ay jaan lay gis bëti jaan lay gis ñu jàkkaarloog moom. Mhm. moo tax duy gëmm. su dee julli ji. loolu moo koy wër looloo tax mu jógee France ñëw fii pour faju mhm. xoj nañu de déglu. heure bi xoj nañu de ba ma fajee ba ma ñibbee fekk maa fi ñëw booru 11h ma jóge fi booru 16h. Mhm. ba may egg sama kër il était 18h. loolu mooy depuis tisbaar julliwuma mhm. ba may egg presque ñu ngi ñu ngi ñëw mhm. donc ma dajale fay boru julli yooyu yëpp. ceer na taxaw naa julli julli yooyu yëpp. gisuma jaan. c'était la première fois.

kutudo ndoy ban koku momo fi indi mhm. wa momo fi indi mhm. kutudo Mamadou Ndoye Bane man de li ma dund ah, fépp fu ma dem minimum buñ ma waxoon juróomi nag mooy li ci gën tuti pour mo leer mère bi mo ni ma sama kanam bu ko masqué sama voix bu ko masqué ndax dama yàgg dund lii nit ñi dama dof mm. motax ma bëgg nit ñi xam ni li daloon te mu nekkoon ci man génn na maire bi moo moo ma explique loolu. kii Ndoye damay ñaan 10 secondes rek ma leeral benn affaire. waaw teel Serigne mbay waaw ñun xamuñu ko woon. waaw dafa am ñuy wax naan dañuy jéem a def promotion am. promotion ka Serigne mbay xamuñu ko woon. waaw dañ fay teg xalaas ku am problème mu contacter ñu faj ko. ñu gis ñu gis résultat. nit daa am problème ñu ko fa yóbbu. ñu koy faj da ngay da gone. man Mamadou Ndoye Bane je prends toutes mes responsabilités. Mm-hmm. docteur tubaab bi dafa am ku ci aayee dañ koy wax ci rajo bi ni dafa aay ñaankat ñun ay africain lañ su ma gisee ñaankat bu mën liggéeyam mm-hmm. ma jox ko ka affaire mu mu réussir comme ni sëriñ bi yéen day réussir mm-hmm. nii lañ koy tegee ci rajo ah, bi mais dañuy leeral rek non dañuy leeral rek bu jarul leeral bu subaa na leer rek allo